waaw xam nga Ousmane Sonko nekk na citoyen sénégalais ba pare nekkoon fonctionnaire état yaa ngi dégg kenn neexalu ko moom moo dem ba xam gars yi seen maguy mu génn di dénoncer di dénoncer mais Sénégal dañ nekk dëkk boo xamante nii mooy la sumu waay dictature bi munoo am liberté si benn liggéey xool ko si ñekk si ñu nekk si justice bi ak si ñu nekk assemblée si ay dégg ak si bépp kuréel nax alors foofu noonu mënatul woon am liberté si liggéeyam ñu daaxu ko par décret alors mu ñëw askan bi gën ko bëgg parce que askan bi la dafa nekkal ñun saa waay ku ñu nekkal may la su mu waay xoola ñu nekkal la mm-hmm. est-ce ay dégg ñun intérêt Sénégal nga ñuy wax mm-hmm. yaa ngi dégg te yàlla tax mm-hmm. may la su waay xoola nga am ñu quoi est-ce ay dégg noonu la demee mais du si ay ay ay ay xama ay ay maam waaw waaw maam ay mbiru martaat affaire yooyu noonu Me El Hadj Diouf Sénégal mooy wax ak yow. yow sàcc nga fenkat nga markatu tat nga dunguru nga amoo dignité amoo ngor amoo jom amoo fulla amoo fayda dof nga wayadi nga le plus mauvais des avocats au monde man noonu laa ko l'avocat du diable la médiocre avocat très médiocre même est-ce que am na expliqué yow Me El Hadji Diouf man man man man vraiment man je comprends pas Sénégal quoi est-ce que ay dégg yow koo xamante ni ma ne la su ma waay bërki dee moo njaay xaa saanoo sa vidéo vaar moom bu amoon ngorleeg wala deretu góor bu doon daw si surutu yaramam ma ne la su ma waay xoolal dina jég saay sax génn dëkk bi daw wala mu dem sax xaru ji ah mais saa waay dama xam ni kat góor dëgg xajul si yenn yi quoi te ku la tegal say vidéo vaar dem nga génn naan ay Macky Sall tu m'as déçu di dal nguur gi tey ngay ñëw naan Ousmane Sonko fenkat la ni ko si kaso bi yow yaay bi yow yaa mérité est ce que am na expliqué Ousmane Sonko place am du si kaso bi place am si société bi la ndax société bi xoola ñu mel noonu lañ soxlaa est ce que ay dégg ñoo xamante ni ay patriote nañ gëm seen réew bëgg seen réew ñu gis ni kat signé nañ may la suma ay convention xam lu ma la ñu xam ni lii kat Sénégal amu si bénéfice gisu si boppam lépp si tubaab yi lay dem li si des tamit si benn famille lay dem mu dénoncé ko mais loolu noonu ñun sénégalais mënuñu lu dul di si kontaan. ba pare Sonko xoolal di ko gën di ko bugg te tamit di ko ñaanal yàlla ba pare aussi di ko sàmm Sonko nous le peuple nous sommes la sécurité de Ousmane Sonko. est ce ay dégg noonu la demee quoi moo tax Sénégal mooy wax ak yow di la wax ni xoola bul fontoo nit yi ñëpp sax xam nañu yow fenkat na te bëri sax instant yi ñu naan wëroo parce que wërul am yoo xam ni nit ku normal sax du ko def quoi nañu waxante dëgg. yaa ngi dégg bu teyee nga génn saaga Sonko bu subaa nga génn saaga journaliste yi may la sumu waaye dafa wér wérul xaa xamoo ñàkk wér bëri na feebar mën a fen mi tomani sax laa lay wax nii feebar la boo demoon si tubaab bi da nga lay traité ba nga wér feebaru sàcc kleptomani feebar la boo demee danga lay traité xoola ba nga wér yëpp ay feebar la moom wérul xëy na mythomanie la am xoola ak feebaru markat martaat intérêt personnel est-ce que yaa ngi dégg na dem ay violam yaa ngi dégg noonu la demee ko quoi ñun saa waay Sénégal xoolal ñëpp boycotté nañ ko lépp lu ñuy wax ay ginnaaw kër la ñuy saf duñ ko sax déglu te di wax sénégalais yëpp xoolal bu ko kenn déglooti noonu la demee quoi. seetlu lépp lu Sonko wax teg ko ci table bi teg ay exemple am leer nañ maanaam lépp lu concret mu teg ko ne lii nii am na nii ay chiffres yu mu yëkkati teg ko mu ne lépp dara. am mais parce que day fen parce que day fen waxul dëgg day fen ñun ñoo koy wax te yàlla tax. ñun saa ay porter plainte ay justice ñun bu ñu amee lu ñuy dute lu ñuy ragal justice yu yàlla nañuy ragal te bu dee justice yu yàlla suñu xel dal na si parce que dëgg rek la ñuy dund ay soldats bu bàyyi sañ di wax dëgg te yàlla tax est-ce dëgg day fen lépp lu mu fi wax may la sum xoola may la sum waay Sonko li mu wax dëgg la ñoom ñëpp génn may la kii génn gauche kii génn droite ñëpp génn di kebetu man ni may la sum waay da leen ne saa waay ku génnul wax sax gaa ñu dàq la. mais gars na ñu dimbali te yàlla tax ay Abdou Latif Coulibaly ñëpp ñu siy wax xoola xoolal seen dëmal nga xool bu baax nu mu demee ñun ñëpp ay marketu taat nañ du ñu dara xam la nañ dem bii nafsu xaalis am xaalis di dajale ay kër di dajale ay oto mais yéen ay baaroo la loolu yëpp leen di ko doyee yéen gaan yéen saa waay man man man je comprends pas quoi ñi xanaa saa waay xoola ay vampire nañ ñoo xamante ni dañ leen dañ leen ñu ko wàccal fii senegal pour ñu coob ñu wala lan ay sénégalais nañu man xoolal sénégalais patriote fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo Medina am from Dakar est-ce que dégg artiste rappeur porteur de voix la voix des sans voix may la su ma waay di wax xool askan wi lëmb di si gis seen bopp est-ce que dégg voilà te nee la sama combat yi ma nekk xoolal sama baxan laa si teg bu ma dee sax janox yàlla sax du ma ruus jërëjëfee Baye Niass lenn kase ngeen ma mënal mooy xoolal rey ma wala dugal ma si kaso bi. ba ma ree xoola Baye Cheikh Mamour Insa Diop bëgg Baye mooy sama sëriñ moom laay dund ma taamis bi si MRD du yaa ngi koy gis nii loolu laay dund te may la su ma waaye bu ma dee xoola na ma sang bi toppatoo ñaanal ma suuli ma mét na Baye loolu rek laa bëgg sinon kaso yi boo ñu fa dugalee lu mu munti demee xoola duñ ma sa bàyyi mu sedd ndax yéen baaxoo leen santoo leen yàlla te képp ku taxaw may la su ma def confrontation ak yéen di dal seen kaw dal si kaw dajaal dal si kaw iblis. li ma wax yëpp xoola bu leen si dagg dara te yàlla tax est ce ay dégg noonu la demee quoi mm. baaxuñu sant ñu yàlla nekk si réew ma la su ma waay di dooleel góor jigéen yi yow Macky Sall Obama wi ñëw Sénégal ma la su ma waay lan la wax. Mm,